ça fait rire mais tu te dis est-ce qu'il n'est pas en train de faire un coucou à d'autres personnes pour avoir leur électorat ñi ñu ne ne kii kii ku baax la kii ku ko jox réew mi. votre public à vous. non <laughs> les, les immatures donc je, je je rappelle que toutes les personnes qui sont en train de nous regarder ils ont la possibilité de donner leur opinion tey maa fi nekkal Habib MVP ak Khadija Patra euh, Ousmane Diop nee na léegi mburoog kaani la Lamine Faye mu ne en croyant. être plus intelligent que tout le monde, on devient fou. Mm. Idi est un homme du passé. Wade est au Panthéon alors que Idi est dans la boue de la <laughs> paix. Ah la volonté divine. baal ma baal leen ma ci ci ci ci liir gi dama doon liiraale. donc si vous avez euh, votre opinion sur la question de la déclaration de Idrissa Seck sa candidature l'affaire Ousmane Sonko bon bref il a parlé de beaucoup de choses on ne peut pas vraiment en parler dans cette émission Thiedo balaa ñuy jàllat ci beneen élément bi. waaw xam nga. lu ma ci wax sax mën naa bañ a bari ndax d'abord nga xam ne nit nekkul lu figé nit dafay changer mhm. nit à la day changer nit noonu la ko yàlla bindee bu tuddee yàlla day changer bu waxee lu baax day changer nangam euh, j'ai souffert nag parce que j'ai pris la peine quand même de parce que bëgguma wax ci lu ma xamul mais Euh, Idy m'a saigné le cœur quand même bi ma déggee muy wax ci Ablaye Wade. Mhm. franchement. baal ma ma laaj la de damay dégg ñu naan yow Idrissa Seck ngay ngay faral. je l'ai soutenu en deux mille dix neuf. Mhm. voté pour lui. la lendemain de l'élection cette histoire-là était derrière moi. moi je peux pas avoir un leader politique. Mhm. man am naa leader ba pare kii ma sol mbubbam mooy sama leader tey ak ëllëg te doy na ma. waaw kay loolu donc loolu ça aura le mérite d'être clair. non non non ça Idy Idy Idy Seck d'ailleurs musuma ko teg bët musuma ko gis du tout de toute ma vie musuma ko gis. alhamdulilah voilà je ne suis ni Idy ni Massamba ni Mademba. lan moo la séduiroon ci moom. dara séduiruma ci moom ma koy yërëmoon. <laughs> waa sénégalais dañuy voter par compassion dafa jébbalu ci sëñ Touba. <laughs> ah. ma gëm ne jébbalu na ma gis attaques yi bari ma yërëm ko xam affaire mbokk bi rek ma sot tout en sachant que du gagné. man j'ai fait des lives en avril 2018 pour dire que le président Macky Sall allait gagner les élections au premier tour vous pouvez vérifier sur ma page Facebook mais je l'ai soutenu pour qu'il ne soit pas ridicule gis naa nag ci moom ay qualité dëgg la nit la nit ku baax la nit ku bëgg diine la mais quand je l'ai écouté parler du président Abdoulaye Wade dama rus parce que bu doon ko ko sori sax di ko wax ci moom sénégalais yi yeddu ko Mhm. waxuma la nag koo xam ne dafa wuutu sa baay ci yow def ci loo xam ne sa baay mënu ko ci yar ci teraanga mhm. ci yëkkati la ci dara jàll la mhm. nga saaga ko wëlbatiku saaga doomam ñaar ñoom ñaar ñëpp la saaga donc le problème de Idrissa Seck reste constant c'est maître Abdoulaye Wade problème am la te loolu yàlla mi ko bind bind Abdoulaye Wade du ko saafaral parce que moom ni mel mel na ko ba noppi lim doon doon na ko ba noppi kon Idy na jéem a xooli leneen Karim Wade kenn mënatul wax ba du doon doomu maître Abdoulaye Wade ñoom ñu ameel ko boru teraanga muy président Macky muy président muy Idrissa Seck muy tous qui sont dans la famille libérale mais dëgg-dëgg bu mu loolu mu wax ci jëme ko ci maître Abdoulaye Wade bu mu ko defati mukk ku ko jege tey mbokkam ne ko wegeel ak cofeel ak jox cër ak won ko ak yar akub teggi ak i teggin moo war digganteem ak moom mm. pour quelqu'un qui parle d'une affaire aussi sérieuse qu'une candidature à l'élection présidentielle mm-hmm. je pense que même moom sax gëmul ne bu nekkee candidat dina am njariñ mm-hmm. wax dëgg yàlla on est sérieux quand même on parle de la gestion des affaires de l'État et au plus haut niveau mais j'ai pas vu un candidat sérieux d'abord après nag l'invalidation de la candidature de, du président euh, Macky Sall euh, c'est son avis après nee na il a consulté quand même des constitutionaliste sa visite chez Ousmane Sonko ses propos par rapport à Ousmane Sonko moi j'aurais été un ami de Ousmane Sonko je lui dirais fais gaffe à Idrissa Seck faut pas fréquenter ce genre de personnes là xam nga lu tax ils se sont à l'époque euh, waaw bu ma duggee ci biir am néeg waxtaan ak yow gis ko ci mbedd mi man moog banaa la man man pour man un homme d'état mi ngi tàmbalee ci sa biir kër la ngay séq ak sa soxna mu mën a des ci biir néeg bi la ngay séq ak sa taaw mu mën a des ci fa ngeen doon waxtaane parce que boo xoolee euh, dans la conception Confucius day wax famille bi bu jagee rek ñoom dañu àgg sax ci li ñuy wax piété filiale maanaam bëgg ngay bëgg say wayjur xeetu jaamu yàlla lañ ko def parce que amuñu quand lu transversal amuñu jaamu yàlla ci kaw mais ci suuf nii way jur yi famille bi quartier bi réew mi mais boo dee waxtaan ak nit ci biirum néeg te soo génnee wax ko ci mbedd mi man boog man duma la ñeme mhm. léegi nag c'est il reste quand même un politique comme nous connaissons nos hommes politiques sénégalais qu'est-ce qui se trame entre lui et le président Macky gëwuma sax ni parce que moi les libéraux là ñeme ma leen de ay affaire de non il est sur sa position day nekk candidat ak yooyu Idi Sonko génnal ci politiciens yi te dem sa sa ndënd fële ñu la koy tëggal ngay bàkku moo gën de <laughs> wax naa la li ma lay wax ndax ñii nii fañ lay roof galgal bàyyi ko fa mu fanaan bu fa sa tànk di damm kenn du koy ay ji rek la ñuy dégg l'homme n'a convaincu lui-même ne s'il se jugeait wala il a raté sa sortie ouais, non non kay raté kay on peut pas dire raté ça raté. moi je que c'était pas structuré il non. de tout ah, xoolal quand tu parles pendant une heure une heure trente et ah, mm-hmm. ma xam naa ne li may wax dara ñoru leen ci ah. déjà yi xam nga il a répété ça plusieurs fois parce que on s'attendait à sa déclaration lan la defi woon Kër Sonko non mais est-ce que kilifa war naa toog lu mat waxtu di wax ak ñi muy waxal te mu xam ne lii muy wax ñoru leen na leen wax li leen ñor. ay taskatu xibaar ñu jàll ci ah? leneen. ay taskatu xibaar waaw mais taskatu xibaar yi xam nga ils sont là pour pêcher des informations. Mhm. les informations Astou les a sorties c'est sa candidature l'invalidation de la candidature du président Macky les supposés soubresauts juridiques sur la candidature de. Sonko. monsieur Ousmane Sonko. autre chose. mais léegi loolu moom xamoon na ni. waaw looloo fa indi taskatu xibaar yi te loolu rek lañ doon xaar. te lim njëkk a wax yëpp waxuloon loolu. Euh, ba pare il est et puis Pape Sidi mhm. euh, nit matul de euh, Idy c'est Idy est trop suffisant ah. Idy buy wax da defe ne xam nga li yi di wax naan self made man c'est un faux concept amul kenn deful sa bopp ni nga mel hmm. loxo yàllaa jiitu ci jaam ñi waaye yàlla da koy sabablu ci ay nit est-ce que lu mu wax Abdoulaye doit beaucoup aussi la ko mérite beaucoup au président Wade waaw bas en bas qui dit j'ai peur qu'il y ait un deal entre Macky et Idi. Ah. le Lucho euh, González euh, Lucho mu ne j'ai la parfaite conviction que Idi a le soutien de Macky Sall c'est la porte de sortie de Macky attention sur toujours la page Facebook c'est un coup d'épée dans l'eau de la part de Abdoulaye Wele il y a beaucoup de commentaires et je ne pourrai pas mm -hmm. les lire vraiment donc yéen ñi nga xam ne yéenay wax seen xalaat naka ngeen gisee génn ak jàngatu sa sekk bi man euh, gis naa ni daal euh, kii na euh, <laughs> Assane Kane kii di Idi danu yëpp il n'a fait que bon on sunu sunu sunu sunu sunu kilifa la. Mhm. et am na ay wax yoo xam ne luy teggin ñu koy teg ci kilifa. Mhm. ndax droit de nes rek war naa tax ñu war mal ko. Mhm. ñu jàllaat ci beneen actualité bi Karajo on y va. Maître Tall ça va c'est pour quand heure bi 22 heures on a dit toutes les conséquences il n'y a pas de souci on constate c'est bon hein? est-ce que je peux est-ce que l'avocat peut regarder c'est bon ou c'est le concerné c'est mon c'est mon premier s'il vous plaît est-ce qu'on peut lui remettre la c'est l'heure non non non film da koy niital film da koy niital da koy niital non non jël ko da koy niital ko Vous pouvez lui opposer votre force voilà non non non mais nous n'avons pas reçu de mandat nous n'avons pas reçu de mandat nous n'avons pas vu de mandat